naafila seet guddi juróom-ñaareel gi ci weeru koor sopp nañu ko ci juróom-benn rakaan rakaan bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon ak sóoratul kaafiruun sóoratul ixlaas lu ci nekk juróom-ñaari yoon aaya bu nekk borom bi subhaanahu wa taala dina ko ci bindal aw yiw te dana mel ni itam ku saraxe junni dinaar te lu mu ñaan yàlla mu may ko ko te des na ko bindal tuyaaba ju toll ne li mu bisi àdduna bi yépp mbokk yi ku ci bëgg yeneen leeral nga dellu ci Xurratu Ayni bu Sëriñ Suwaybu Mbakke page 143